tey dañoo ñëw fi nga xamante ne moo di rue 11 ñuy waxtaanee lu am solo muy parc bi nga xamante ne moo fi nekk ñuy jaay bant di jaay buntu yàqu yi ak yeneen ak yeneen damay bàyyi rek sama papa mu présenté wu daal di wax turam daal di euh, daal di leen nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan à travers MTV papa maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. salaamaaleykum wa rahmatullah soxna si maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm dak àdduna lool la ndax àdduna moom boo xoolee situation la day neex tey suba mu naqari fii nag yàgg nañu fi comme ni nga ko waxee rek. yàgg nañ fi torop parce que man rek maa ngi fi ñëw événement naar yi te man maa ci gën a nekk xale kon def naa fi 30 ans man suma grand frère yi ak suma papa yi ñoom yàgg nañ fi. mbir la moo xamante ne bii dañ fi nekk di fi daan suñu doole di suturlu nekk fi jamonoy Abdou Diouf Ablaye Wade ba tey mag Sall toog suñu borom dogal lu dul jeex nag amul mais luy jeex lu ne na jeex ci ngor parce que dañu nekk fii di jaay suñu ngor jaay ñu suñu ngor benn yoon di liggéey di jaamu yàlla. chaque jour di daw dépense kon bu suñu borom dogalee tey même bu ñu fi dee jeexal sax nañu xool ci ay conditions yoo xam ne gouvernement bi nañ ñu fa mën a teg parce que loolu mooy wàllu jullit ay jullit fu ñu nekk di fa liggéey ba toll ci benn situation bi war nañ leen ci mën a jàppale te yàgg nañ fi torop nag yàgg nañ fi torop fii yàgg nañ fii di fi daan suñu doole di fi dundal suñu njaboot di jaay ay lal yu yàqu di ko defaraat di réparer ay matelas éponge ak matelas ressort yooyu yëpp ñu koy defar di jaayaat kon bu suñu borom dogalee tey ñu dem bañ ne dañ ko soxla soxla soosu góor gouvernement bu soxlaa day jël kenn mënul xëccoog moom waaye ñuy ñaan dimbal di lancer message ñëpp pour ñu jàpp ci ndax nun kat ay néew ji doole lañ yoo xam ne yaakaaruñu leen lu fii te fii ci la suñu teraanga nekk te nit ki amul lu dul teraangaam te ku ko xañ teraangaam rek xañ nga ko àddunaam waaw suñu dëkkandoo yi dina neex pour ma wax ci parce que ñoo ñun ñoo leen fi jiitu dañ leen fi héberger bi moo fi jiitu ñooñ ngay wax ñëpp mais nag xam nga pàkk dafa rëy ginnaaw ndax pàkk boo ko déggee rek mooy daara dañu ñëw ñoom fekk si nu fi biñ ñu fi fekk see affaire bi yaatu te Baye Ahmed moo ñu ko daggaloon am ci yërmande nun trop biñ ñëwee ñëw bàyyi leen ñu dëkk ci du tey ñun ci wet gi ñu mën a teg suñu bant di jaay kon loolu noonu noonu la fa demee yàqaluñu nu dara yàqaluñu leen dara ñu ngi xëy di daan seen doole ñuy xëy di daan suñu doole xaj na kay lii day doon loo xam ne ñoom dañ ko soxla muy surtout stade bi te buñ ko soxlaa moom bu boobaa comme li ñu la wax rek dañuy lancer toujours ne nañu seet ne nun ay doomu aadama lañ te dañu néew doole xool côté buñ ñu jàppalee rek parce que nit ki moom fu lu dul jeex rek amul quoi foo nekk si àdduna day jeex mais fooy jeex luy jeex lu net na jeex ci ngor. loolu am na débordement am na mais nu nit ay nit lañ bu ñu demee ba mu déborder benn déborder bi dañuy calculer ne lii déborder nañu ñu waat ba mu naajis ñu tegaat. heure boo amee marchandise bu bëree day déborder mais da ngay rangé waat ba mu tolluwaat ci benn état bi nga xam ne ñiy jàll dinañ mën a jàll duñu yàqule dara. mairie la ñuy fay dañu daggalan carte boo xam ne weer bu dee dañuy dem ñu fay dañuy fay mairie yàgg na dañuy fay mairie mairie la ñuy fay daf nu daggal carte boo xam ne chaque fin di mois dañuy dem ñu fay. waaw li ñu doon fay fii nag ñun ñëpp bu ñu ko bolokee dañuy joxe vingt mille francs waaw weer vingt mille francs waaw. waaw toujours bu ñu ko fayul dañuy ñëw ne fay leen wala kii après ñu négocier rek xam nga nit ak nit doom aadama moom bu ñu négocier ak ñoom dal di leen jox après ñu demaat bu weer dee ñu ñëwaat laajaat noonu rek lay demee saa su ne. waaw ñun moom six personnes lañ. mag ñi bëri woon nañ ne macha allah mais ñenn ñi retraité nañ dem dëkk ba ñun jeunes yi nga xam ne ñoo fi xaw a toll ci ay jeunes maag paa boobu ngay gis sa ginnaaw ñun ñoo fi nekk léegi ak suñu rak ak suñu benn paa waaw six personnes lañ six personnes yooyu ñoo fi nekk fi mu ne di daan seen doole. waaw loolu dina neex pour moo wax ci parce que bagage occasion moom nekkul bagage bu bees mais tout le temps da ngay jël sonnaat ci defar ba mu baaxaat ba nga xam ne yenn néew ji doole yi nga xam ne jotiwuñu ci état bu mag bi dañ ci mën a toll bu boobaa ñooñ lañ koy jaayaat ñoom it dañ ciy gis seen bopp nu vraiment ñu gisuñu bopp. a ah, corona bi moom du question nun rek àdduna bépp la sooxeel nun ñii soxel nañu bu baax waaye nag sant yàlla ndax doomu aadama bu fekkee ne day dund di xëy di daan dooleem li ko yàllay jox mu mu respecté ko euh, doyloo ko rek bu boobaa dina ci mën a concentré wu ba dund dundam gu neex ndax ki gën a woomal ci àdduna mooy ki doylu waaw ki doylu moo gën a woomal ci àdduna tey boo yoroon ay milliards te doylu wóor day mel ni comme man mi yorul dara man maa la tane. waaw li may wax ci loolu moom di sant yàlla rek ndax toujours comme dañ koy dégg rek ñun yàlla nañu ci dégg doy ba jeex loolu rek lañ ciy wax ndax mbir la moo xam ne suñu borom a ko wàcc balaa la kon nag nun xel lañu yàlla jox dañuy moytu saa su ne li nga xam ne dañ koo wax nga xam ne docteur yi da koo digleeg yooyu yëpp ñu ma jël matuwaay bi mais nag du tee liggéey suñu liggéey du ñu tee jaamu yàlla suñu borom te it du yóbbu suñu fit nag ndax doomu aadama lañ rek te buñ matalee dañuy dem. waaw appel bi ma leen di lancé mooy di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu xam ne nun ñëpp ay jullit lañ yàlla moo nu boole ci àdduna te àdduna day jeex luy jeex lu ne nag jar naa sóoraale kilifa yi nga xam ne dañoo jiitu nekk ci bopp bi nañu xam ne néew ji doole yi seen ginnaaw ñoom lañ fi nekkal yàlla nag xam na lépp. képp koo xam ne dimbali nga ko te yàlla tax rek yàlla nee na dinaa la fay képp koo xam ne sonal nga ko bu ëllëgee bu boobaa ay détails lay doon seen diggante ndax bu la ko baalu da koy fay kon yàlla nu yàlla doon jàppale lii nga xam ne feebar la suñu borom dégagé ko fi mu jeex yàlla defal nu jàmm may nu ay xéewal nag defal nu fan wu gudd ànd ak wér teg nu siraatal mustaqim yoon njub yi nga xam ne euh, képp kum ci teg nga tegu ci yéen ñi xam ne yéen a yor rajo bi yàlla dooleel leen ay ndaw ngeen yoo xam ne da ngeen di jóg di door waaye yàlla na yam nga xam ne moo a jàppale mën a dooleel na leen dooleel ba ngeen raw seeni morom ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la leen di ñaanal am nañ ci kàddu yooyu